damay d'Al di fàttaliku loo xam ne waxoon naa ko 2021 wax ko 2021 ànd ci toute l'opposition amul ca 2021 opposant boo xam ne jóg na ba ne avion bii ñu jënd à plus de 60 milliards gën na ci Sénégal am na ñeneen internet a ngi fi xam nga man nag vaar laa ragal moo tax bu ma waxee bu ma waxee dara ba noppi dama cay des

man di ma fi ma nekkoon démb laa nekk tey mais loolu avis opinion la bu ñu mesure symbolique waaye bu ñu jàpp itam ne Abdoul Mbaye nee na nañu jaay avion bi waaye avion bi fajul fa fajul fajul soxla mais non mesure symbolique la wax ma daf mesure concrète et mesure symbolique te nag bu ñu mesure symbolique ndax boo seetee ba seet bu fekkoon ne dem nañu ba war jaay avion té nak mo am lo xamné li itam ñu ñu fatali ko li indi won ñu naan li jarul ko jënd avion bu ni chéré bu ni yaatoo bu ni luxueuse jaru ko dafa fekk soixante milliards ak lu ko ëpp boko ci avion ba dafa ëpp mëno doon le vingt-cinquième pays le plus pauvre de la planète ba nopi bok ci ñi jënd avion bi gëna cher ci aduna. té amna ay réew yo xamné amuñu avion présidentiel mais loolu sax aguñu fa waye bu bo joggé sax wara jaay jënd leneen ba génnee ci trente milliards ba quarante milliards <laughs> wañi itam frais d'exploitation ndax war nañ ci wax mm-hmm. frais d'exploitation avion ñu koy soog a tudd bi ñuy jënd bu bees bi 2021 Mangi ngi fàttaliku ñu naan ca booba waaw euh, ñu ngi ja ñu ngi dépenser douze milliards quinze milliards par an mais loolu dafa bari donc yaa ngi économiser mën a dugal xaalis ba pare mën a économiser itam ci liy doxal avion bi mais xam nga milliards li mu doon damay faral di ko di ko fàttali Sénégal yi ndax dañuy tudd ay milliards ay milliards ay milliards mais milliards junne at ak juróom téeméeri at béykatu Sénégal senegal, mës war na ko liggéey ba man ca jot te lu dikk ci moom mu mu teg ko junne at ak juróom téeméeri at marchand ambulant kazalika booy gagné euh, quatre-vingt mille francs par mois ci marchand ambulant mais foog nga liggéey junne at ak juróom téeméeri at man man ko ak lu ko jege soo ko mën a am kon milliard tuutiwul dafa am loo xam ne euh, dañ ko war a nangu te loolu buñ ci teeloon a des buñ ci desoon parce que 2012 mën nañu seetaat li nga xam ne lii tegoon nañ ko ba wàññi le train de vie de l'État et buñ ca desoon kon duñu ñu àgg fii ñu àgg difficulté yi. mais mais ci avion bi kon ñi toog tey du ñu doon li ñu doon. te muy jafe metti ci ñoom. Mm-hmm. mais ci avion bi ñu bëri dañ ne. C'est une question de souveraineté muy ben ñaar également moy le président de la république da wara am ben sécurité ben bi pour buy voyager parce que mënoo ko dugal ci avion commercial waaw ah, également chaque fois nga utal ko jet privé pour que mu dem ci ay mission ak ñi nga xamante ne lay andal et les gens vont jusqu'à dire que bu fekké ne lool dafa am la nga né da ngay économiser so motul di nga dépenser sax lu ëpp la nga xamante mom nga économiser nan ngay répondre loolu moom bu fekkee ne étude génn na. ba génnee ne boo jëndee bu gën a ndaw day indi dépense yu yokk d'accord waaye dafa am loo xam ne dina dina dinaa leen ko wax mu jóge woon ci sama waajur bu góor ko yàlla yërëm te xare ko àjjana dañu ko jëli ji woon benn bés aéroport ci oto bi mu naan mais tey laa jaaxle ma le grand-duc du Luxembourg Nous avons le comité international olympique di fa toog bi l'aéroport aéroport bu Paris salon première Nous nañu di waxtaan ma gis na Dakar Nous sommes bi embarquement daal di l'idem waaye bi ma première classe mo xol gisuma ko ma ne ah, kon dama juum foogoon naa ne Dakar lay ñëw waaye benen rew la jëm mu ñu wacc Dakar mu génn ci la soga japp né ne grand duc de Luxembourg mu ngi voyager seconde hmm. non ou business ou seconde ndax lan hmm. ndax alelu état la won té mi ngi noonu ñëw xam nga lu indi won Sénégal bor don de 800 millions bo xamné bi daf ko pour ñu defaraat le marché Kermel te booy doxal yëfu état amna lo xamné dang koy jomb est-ce que c'est normal par exemple parce que ñu wax yëfu avion man sañuma ko ngay jënd auto boo xam ne ça coûte un milliard chef d'état yëpp ce ne monde ci monde bi amuñu auto bu noonu mel ni ma ko waxee sànq itam mais boo toogee nag ne non tel avantage foog ñu am ko et cetera évidemment bu boobaa loolu la neex jënd man man sañ naa wax sax ne gën nañuy voyager ànd ak cent personnes bu boobaa nañu jël benn euh, ben euh, Airbus 380 euh, pourquoi pas mhm. N'argen? Vous faites bu fekkee ne da nga war a toog di équipe di liggéey ci avion mais il y a des solutions à tout da ngay jëf loo xam ne moo gën ci mo gëna mengo ce ce niveau nga jomb ko mais encore une fois le ci avion c'est le problème Vous faites mesure symbolique mën na yombal li nga que mbëbët mën Fonds monétaire international le conseil avec le nañ ci am yaakaar ndax ñaar war nañ ko ci jëlee benn bi reddition de comptes yàgg nañu wax ne senegal daf ko soxla ndax lan ndax ëllëg ku ñëw toog ñu dënk la kees nga yaru ci màndu ci di doxal ni mu waree xam ne alelu public alelu askan wi la loolu di benn ñaareel bi itam lépp loo xam ne man nga ko jël mu dellu si ci keesu état war nga ko dox ndax yàlla jox na la nguur gi toog nga ah da nga war a defaraat bu fekkee ne loolu mën na ne li ma ci wax rek mooy bu ñu def li nga xam ne lii dund nañ ko en 2012 muy moyen politique de neutralisation des politiques ndax nag dañ koy wax des té buñ ko waxé duma ci sori ndax a quand même des trucs de confidentialité liñu liñu mu warona indi reddition des comptes deug dañ ko félé indi créé. ana créer lutax ñu dindiko ñu créer yi mënoon na efficace waaye nag nga doli ci lo xamné day mengo li yoon nangu moy possibilité de recours mais lu ñu dindiko xaar ba quelques mois avant le la fin de mandat nga dindiko <laughs> mais est-ce que ko ci ku jàppoon ne hmm. reddition des comptes warna té ci créer le wara jaar hmm. Hmm. waaw mais fofu fofu question bi dañ la koy delloowaat parce que dañuy fàttali ni euh, créé bi ñu koy lancé biñ koy dépoussiéré en 2012 euh, Mimi Touré mo euh, ministre de la justice mais yow ya nékkone premier ministre. un cours de répression de l'enrichissement illicite bu nga ça date de 1981 mais ñu dépoussiéré ko. ba defoon li li Youssouf doon wowe légui la traque des biens mal acquis mais on s'est rendu compte que li nga xamante mom lañ ci on a eu l'effet inverse dans la mesure où l'État du Sénégal sax jëlat na 4 ci jël ay cabinet indépendant à travers le monde ñu rechercher des fonds yu nga xamantene pratiquement jotu ñu ci am ay cabinet d'avocats, yu nga xamantene après ça. gis nañu ñom ñuy ñaxtu ñene ne yoroon nañ leen ay honoraires yu nga xamantene fay ñu leen ko ce qui fait que pendant trois ans on a fait une traque des biens mal acquis dal di def même une cour de répression de l'enrichissement illicite bu nga xam dem na ba juger mais ca cëppaandaw ga ben nit wala ñaari nit moy ñu nga xamantene lañ condamné donc finalement est-ce que du loolu le fait que CREI bobu nga xamantene dañ ko tegoon c'était pas efficace loolu motax en fin de compte ñu mujj ko supprimer tout simplement. xam nga am la wax sank hmm na amna na yoon boo xam ne. Hmm. munoon na hmm yoon bobu proposé nañ ko. may ban yoon jaatu ñu ci. may ban yoon. euh ma la mëna wax moy hmm en tant que manager privé hmm. boo ma dénkee lu noonu mel li may jiital mooy lii nga xam ne ñun ca jëm nañu am dossier bu leer ci mbir hmm. ci ci enquête bo xam bi.

waaye prêtre non yombut a rëbb de am na solo nga toog ak des experts comptables ñu ak ay avocats ñu mën a liggéey loolu waaye boo demee bitim réew xam ne diw am na compte fii ca Singapour walla Dubaï walla Israël walla beneen réew dina jafe ci yow lool waaye am na ñu ko mën c'est le cabinet Kroll international loo ko laaj vous connaissez ne c'est que Daoudamine Daouda Mine a compte à Singapour euh, de de de de 10 millions de dollars yàlla na defal ah <laughs> mais dina ko génnee boo ko laajee Daouda Mine dama bëgg nga génnee ma mail yi nga xam fukki at gannaaw euh, yoni nako à travers le monde dina ko génne. Mhm. bu boobaa nga toog waxtaan ak ñoom ba déggoo ci li nga leen di fay lool laaj ñu indil la ko ca booba nga daal di yor sa dossier doo politicien nag. Mhm. man du politicien nga toog.

ban nga sax waxtaan ak moom en douce soxlawul coow. ne ko ngeen def médiation pénale. jëlul as tuut nga denc ko waaye li ci des na dikk. Mm-hmm. ndax bu fekkee ne joxewuloo ko. Mm-hmm. bu boobaa dinañ la topp yoon. te topp yoon bi sax lépp loo xam ne yaa ngi ko denc bitim réew. Mm-hmm. violation de la réglementation des changes moo ci gën a gaaw. moo ci gën a gaaw ndax mën nañ la laaj juróomi yoon li nga xam ne ni denc nga ko bitim réew da hmm. ngay dox boo toogee fekk itam am na yeneen réew yoo xam ne mës nañu jéem a def ni yow nga oo banque mondiale leneen waaw ñu dey lii ñu ngi ko bëgg a doxal lu ngeen ci xam boo leen waxee lu ni mel dima la non dima la non wax sax mhm. ne la lolo yon mhm. ndax bo topé nit ci yoon te dossier bu deuguer mhm. ñaar fukki at man nga ko top té do ci jot. té problème politique lay indi. <clears throat> mais est-ce que yon bi yon bi ngay wax ne est-ce que en 2012. digtaloon nga ko ñi nga xamantene le président Macky Sall. ak kooku bokk confidentiel <laughs>

lolu indi lan président ak gouvernement dañu and don exécutif assemblée nationale le pouvoir législatif pouvoir judiciaire dans le dikk té amna solo un yakarna né ne programme euh, président Diomaye Faye pouvoir yi gën indépendant ndax bu féké ne pouvoir yépp ñu ngi ci président de la république mu daldi am assemblée nationale bo xamné mi ngi ko top ci lu décision automatique ba ca ma ngi doole ñu ne nañ ko en urgence moy bi muy tindi <laughs> le le le le le poste de premier ministre ak pouvoir judiciaire muy présider le conseil supérieur de la magistrature yoré carrière ou magistrat mom na lepp que fu mu am dictature wu kon ñing ci and ak à 100%. pour exécutif ben président à gouvernement ben Donc, des gouvernement institution Un solo ministre respecté chef du gouvernement ramené chef du gouvernement y direction du gouvernement président de la république bouille au ministre jox ko là c'est à éviter Waye batay tey nañu des ci li nga xamné li constitution mom la japp moy le premier ministre le gouvernement fonctionne sous la direction du premier ministre euh, ma jappone rek ne bo baye loolu mom la constitution bi wax indi sous l'autorité amna xeyna lo xamné loo koy soppi té indi ëllëg jafe-jafe te a premier ministre. Euh, <laughs> le ministre il est indépendant dans une certaine mesure du premier ministre ministre qui constitution s'inspire de la constitution française vous faites qu'un le gouvernement est une institution collégiale le gouvernement euh, conduit coordonne la politique de la nation, qui est définie par le chef de l'État, sous la direction du Premier ministre. Premier ministre Manna ministre ministre japonais Li li nga président wax politique de la nation définie mu Oui, ko c'est sous l'autorité de Le chaîne de commandement bi mom taxawal il s'exécute kon bu fekkee ne def na sax loo xam ne joxoo ko ndigal joxoo ko ndigal joxuloo ko ci ndigal mais man ma loobeteku ne ah en tout cas man j'étais sous l'autorité du PM c'est vrai responsabilité pénale bu moom dina ko dina ko gàddu waaye tu es éclaboussé bu ngeen ko seetee ci démocratie dëgg bu fekkee ministre am un collaborateur am bu def naka sudul noonu il démissionne je suis ministre Mon directeur général def na loo xam ne ñëpp un koy scandale dikk na damay il est sous mon autorité kon ëllëg bu fekkee ministre placé sous l'autorité du premier ministre def na naka scandale Bobu, mën na yobbu premier ministre te fi ñu toll tey bu fekkee ne yem nga ci constitution bi ci sama lecture man mën nga seppi remaniement limité génne premier euh, mi benn ministre boo xam ne tooñ na ba de def na loo xam ne waru ko woon a def remplacer ko. Mm-hmm. man man foofu li ma ci li ma li ma ci laaj. moo euh, je pense c'est pas la première fois que ñu bindee ko noonu parce que euh, avec Mohamed Boun Abdallah John en 2019. il y avait un décret. Ah, voilà <laughs> wax nga ko. waaw mais xam nga xam Je vais tax. bàyyi ma question donc avec euh, Mohamed Boun Abdallah Dion en 2019 il y a un décret qui vous savez. effectivement nous lañ ko sous l'autorité les ministres sont sous l'autorité du premier ministre léegi beneen question bi may. du premier ministre ou du secrétaire général. du premier ministre. Hmm, hmm. Mohamed Boun Abdallah John en 2019 je n'ai pas en mémoire le numéro du décret mais c'est un décret de 2019 Je exactement comme libellé bi def ne maintenant la question que je pose c'est que est-ce que réellement les ministres ne sont pas sous l'autorité du premier ministre d'autant plus que yow premier ministre il suffit que yow nga tout le gouvernement tombe Alors que démissionner non les ministres là dañuy en attendant de nommer un autre premier ministre yow déjà un premier ministre soo démissionnaire, tu emportes entièrement lépp lu nga xamante mu le gouvernement y compris les autres ministres nga qui sont sous votre autorité xam nga débat bi ci autorité bi la nekk mhm. li nga wax ci gouvernement mhm. euh, am na mhm. waaye loolu li muy ne li muy c'est le caractère collégial caractère collégial bi li muy indi le premier ministre est un membre du gouvernement Amoul gouvernement le xamné premier ministre daf le mm. gouvernement le premier ministre n'écoute pas l'institution. institution mm. c'est le gouvernement qui est l'institution mm-hmm. kon ça ça ça coule de source ça mm. Sous l'autorité bobu ngay wax ci mm-hmm. j'avais pas prêté attention mm-hmm. très sincèrement man ni ma japon l'autorité mi ngi guen bi fait que nous dindi premier ministre indi secrétaire général de la de la de présidence Bouboba le secrétaire général de la présidence fonctionnaire presque mais il est dans il est dans l'organigramme présidentiel Bouboba il a autorité sur des ministres qui sont devenus des des des mais qui sont devenus des godillots le, gouvernement n'était presque plus une institution, Mounoko Danel, qui Assemblée nationale, parce que c'est des collaborateurs du ministre, du, mm. mm. Mm. président de la République, astafoula. Président de la République, Denkelen, secrétaire général de la présidence, Mouy Donc ça, ils étaient effectivement sous l'autorité. Du, mais euh, le, cadre de constitution, je ne pas dafa am solo waaw lu tax mënuñu bàyyi sous direction de hmm. ba noppi nag mu am am solo boo conseil des ministres premier conseil des ministres la dam leen di xamal ne mon premier ministre je lui ai donné tous les pouvoirs gouvernement bi yépp moom ngeen di déglu moom ngeen di topp il a toute ma confiance Le cadeau, yu la président de la république le fal ministre ministre boko Mohamed, wax mu dafa document qui ci li ci constitution indi attention, il y a peut-être un petit risque pas immédiat mais affaiblissement du poste de premier ministre en parlant du premier ministre euh, Ousmane Sonko le chef du gouvernement du d'ici trois mois dina euh, assemblée nationale ngir def sa déclaration de politique générale mais y y risque bu c'est-à-dire le risque de la motion de censure qu'il est brandi aujourd'hui yo, dundou nga nan nga gisé lolo. Bon, ben, la déclaration de politique générale, la constitution, Minkoy Mengele, que vote de confiance, vraiment, vous faites qu'il y ait telle une motion de censure que vraiment, il faut politicien. <laughs> on, a, on a dépassé ça. Vous voyez, ça nga xeyna mais lolu mi ngi wara joggé sax premier ministre. Premier ministre je wara dis, est-ce que vous m'accordez votre confiance? Vous faites qu'elle là du coup, il n'y a pas besoin de vote de confiance. Mm-hmm mais telle une motion de censure ci ñoo xam ñu euh, déclaration politique générale bi li ci bah, ça c'est le débat politicien ça n'a aucun intérêt <laughs> donc ça n'a pas de sens mm-hmm. déclaration de politique générale méngoowul ak intérêt Sénégal dina indi lii dina indi lele nga soog a motion de censure xëy man mi amoon naa sama <laughs> mais mais naa am sama boss mais euh, tepp ni rek ne dam lañ dam koy tek motion de censure vraiment am amul mana loolu buñ ko wax sax parce que Sénégal dafa wara de euh, dépasser loolu mais mais mais loolu laa jàpp dama japp ni motion de censure buñ koy def dañuy bayyi ba jouru déclaration de politique générale bi à part de ce moment là ñom ñu xol li nga xamantene ñom mom lañ tëral comme programme en tant que premier ministre ñom ñu xol ndax depon ak li nga xamante mom moy seen gis-gis et depon ak li nga xamante japp na ni mom moy intérêt askan bi bu boba ñuy def euh, motion de censure comme ni ko waxé légui la question de confiance jour bobu euh, le premier ministre mën ko demander aux députés ñu mën ko ko la motion de censure également japp naa ne jour bi nga xamante dañuy def euh, nalaké wat sax euh déclaration de politique générale jour bobu lañ ko mëna ñom sen bop ñu dal di koy def benen question bu mu ci bëgg toftal également bon c'est par rapport à question bu ñu doon wax sànq nga chaque fois ya ngi doon wax constitution mais tay constitution dañuy gis né ci article 50 am l'article 50 de la constitution daf né le président de la république mëna déléguer délégué une partie de ses pouvoirs au premier ministre et même à certains ministres sauf qu'il pouvoir a c'est des pouvoirs qui sont énumérés de manière limitative comme par exemple la possibilité de faire un grâce présidentielle la possibilité également d'accréditer des ambassadeurs ou de recevoir des ambassadeurs accrédités au Sénégal euh, la possibilité de définir la politique de la nation du Sénégal des choses que le premier le président Mounouko ko premier ministre ni au ministre mais bu lolu lepp lu nga xamantene ay pouvoir mën nako déléguer délégué le premier ministre en vertu de l'article 50 de la constitution le lepp lo xamné ne mm. ngi y a pas de problème mm-hmm. problème en vertu de l'article numéro tant etc mais man li li li ma li ma xaw a jaaxal terme mm-hmm. sous l'autorité bo xamné ne nekku ci constitution c'est tout mm. euh, motion de motion de censure bi itam mhm. assemblée nationale mën na ko mhm. waaye daf ma laaj loo ci xalaat mhm. <laughs> vraiment nañ leen bàyyi ñu liggéey ñu soog a indi ay ay motion de censure et cetera bon bu fekkee ne nag jóg na ne yéen député yi dama da damay wàññi seen i salaire dindi seen i oto et cetera bon bu fekkee ne motion de censure am na bu boobaa du bett kenn mais vraiment euh,